jàng inna anzalnaahu ñeenti yoon jàng xul yaa ayuhal kaafiruun ñeenti yoon dana mel ni ku goreel junni jaam jox ndogu junni ñu woor wodd junni ñu rafle te des na ko bindal itam tuyaaba ju toll ne limub njanaaw ju àdduna bi yépp te des na ko defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak jaami yàlla yi nga xamante ni dañoo dee ci xare ak leneen ak leneen soppe ku ci bëgg yeneeni leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page